yaayu maam jaara xanaa nag moom junne dina war a mën a dugg nag dëgg neexul <laughs> ëpp na moom de dinaa ko boole sax te tête de liste la xam nga mettre de ci laa koy boole tey maam Bintu Siise Yapkan gafur su fekkente ma lay déranger désolé nga baal ma xam naa suuf ni ma mel ci réew mi neexu la désolé waaye na saa ma lu ma laal yàlla tekki la ko nga ne la gone googu xamul sax li mooy si pam fuut fekkee tama lay déranger désolé nga baal ma xam naa sax ni ma mel ci réew mi neexul la désolé puissance xam nga yow lu ma la war a wax yàlla def na damay lal basang rek ñaanal la puissance met yàlla changé puissance waaw xew waaye ma la wooy boobu léegi fan nga nekkoon ah, maa ngi nii si oh. waañ bi laa nekkoon lu ko sama woyu sànq ba léegi kay maa man xanaa kër gi Wally Seck fa même pas même pas la bon tey nag je suis très content je suis vraiment vraiment vraiment vraiment content boo wootee war a bon puissance gis nga nit ki di def su ko yàlla defee nangul xat-xat nag boo mun ta ñàkk ñëppay amee xat-xat ñëppay dugg ci ay mais xat-xat bu amé nangu ni ki dafa nek ci xat-xat ni tôt ou tard day génn ci xat-xat yoyu bon <laughs> puissance yalla def na ni man fama nekkon nga xamanteni ma doon jappali sama mbeur mbeur moma xam nga da febar léegi nak alkani moma wo ci bopam ne ma siyax ba ah, mu ne ko amuni ma fan laa la tedelis tëddalis waay ta xam nga la mo gëna neex eh, eh. moy valider nañ sun candidature. nga ci bi Eh, eh, eh, eh. sa loxo sa loxo bala nga may cat. ku nekk ak sa bës. ñu ne bës eh, eh. sa bës oh. la. Mm-hmm. eh eh eh. eh kan, kan mo la wax nga fompal ma samay dal kan moo la ko wax. man dama la ko wax. dama ko wax mu fompal ma samay daal. soppeeku gi nag gis nga ah, yow nag puissance. bon biñ ma nommé loolu nag yow laa njëkk a xalaat ndeysaan jaayal tuuti réewal Yaris. wala eh, ngay xam ni sax di bisu bisu élection yi yow de diggoo ma rek saa yoo jox non non man du ñooñu te ñooñu duñu man parce que am na ñoo dañu fii nekk ñu naan leen andi leen bopp 5000 bopp 5500 di bon léegi nag am na lu parce que yow bëgg fal parce que xam nga temps yi nii mi gis na temps yi ci sen biir ni ñuy defante jubóo won ci sen biir xex bi euh, mbeuri tamit gis na ni ñuy def fan yi ku ci am combat da ngay melni comme si c'était yow da nga wara a def lo xamanteni tay mbeur ma sax bu fa mën na faa jaaree gee hmm. te loolu ma baax la di sun rew ne won nak yow na la fal yow su suma la falé poste bobu non <laughs> yow di nga meuna gérer loolu am nga bu loolu xam nga laaj jëkk lu jënd hmm. xexu ki ba jaat ba kii gone ga borom leer ba ah waaw waaw waaw wax nga dëgg kër maa ngi ko doon dégg ci dinde gala bi ak Amady Badiane eggali ma te xam nga loolu te xam nga loolu rafetul suñu réew eh. non nañu waxante dëgg rek artistes yi dañoo war a yéenante jàmm kenn ku ci nekk li ngay wax sa morom mu nekk ci yow dëggu ci yow parce que Sénégal ñu ñëpp ñoo moom am di bon léegi nag Zé <laughs> allez baba ko mën ko xamul xamoo rek xam nga nit booy nettali di netali. affaire di génn day neex dal yow bo motul bo motul al waxar lañ la xiimal nga na ki kan lay waxal yow lay waxal man. lu sanga ta man lay waxal wala yow. fal na la bis ni ki tay jeexna nga defaru nak te nga xam ni de bon suba danañ ma defal ben chef inshallah wala dina la jox 1 million. 1 million. non 1 million sax du pour dara pour eh li ngay bàyyi suma suma veste bi kañ ko koy bàyyi. yow duma la masa fal pour yow. Zé ma dugg ci biir dallu tuuti dégg nga. waaw dama maa nga. parce que da baax. non garaawul xoolal na oyof rek kañ ga may fal kañ nga may ba. <laughs> ok Zé. oui à bientôt. kii daal kii àdduna ci mën a boo ko wàccee rek. kii duñ koy duñ koy falee. yow xaw a soxoraale de. yow moom man waxuma ak yow ndax yow doo sima doo singom yow ngelaw buy dem nga rek mooy ngelaw sele ba yoon yooyu nga xamante ne dañuy tourné yow moom bul buy tourné nga. yow man awma lu may wax ak yow kii moom duñ ko mos a fal ndax journée nit koo xamante ne doo ko gis mu sangu du laal ndox doo ko gis mu jàpp man de loolu jaaxal na ma. buñ ko falee nag ci xasawam lañ ko falee waaye du ci neexam du ci neex nit ci xasaw lañ ko falee. waaye man xam nga ma jaaxal ci yow. yow man may ma sama jaam yow amul may wax ak yow puusoo toog rek saa yoo xëyee daal fii ngay ñëw toog si sees bii lu ne nga wax ko lu nga def ko vocal nga ku la ci kër àdduna. yow man sax yow man la falee yow dangaa mënul bind. Ah. <laughs> munoo bind munoo écrire munoo lire ngay jaay intellectuel intellectuel tuwer tuwer tuwer